الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
mbokk yi asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen eh, sant kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam ginnaaw bi ma nuyoo borom bi di ko gërëm di ko sant moom mi ñu may ñu mën a fekkee waxtaan bi ba toog fii di gëstu ci kàddoom di ci tibbee li nga xam ne njëriñ la ci ñun te kàddu borom bi lépp njëriñ la kon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax di leen gërëm it di leen sant ci saa su ne ngeen ñuy déglu ci waxtaanu émission kàddu gu sell gi ñu leen di gërëm di leen sant di yónnee nuyoo suñu mbokk mi pasteur Ahmed mi nga xam ni tey dafa am ci yeneen yitte yu mu nekk di ñaan rek yàlla jàppale ko ci ba bu ci génnee ah, ayu bés bi di dellu si mu man fi nekk ak ñun ñu weele waxtaan bi di gërëm di sant suñu mbokk te te- technicien bi coach di ko wax jërëjëf ci liggéey bu rafet bi nga xam ni moom la nekk di liggéey tey jii nag mbokk yi ci li ma bëggoon ñu waxtaanee ci te tibbee ko ci kàddu gi yàlla mu ngi ci téere bu sell bi ñu tibbee ko ci bataaxal bi nga xam ni moom la yàlla may Paul mu sell ma mu bind ko église yi nga xam ni ñoo nekkoon Rome kon dinañu jàng ci téere boobu ñu dippee Rome saar juróom dinañu ci jàng aaya juróom-ñett ba juróom-ñeent lii la kàddu gu sell gi di wax nee na kon nag ñu gàttal wax ji jàddu kenn nit ka rekk moo waral yàlla daan ñépp noonu itam jëf ju jub ju kenn nit ka rekk moo ubbi bunt ba ñépp mën a jub ci kanamu yàlla te am dund gu bees aadama moomu dafa déggadil yàlla ba yóbbaale ñu bari ñu nekk it bàkkaarkat noonu itam Yeesu Kirist dafa déggal yàlla yóbbaale ñu bari itam ñu jub kon mbokk yi bu ñu dégloo waxtaan boobu dañuy gis ni yàlla sunu borom ci téere bu sell bi mu ngi ñuy méngaleel ñaari nit ñoo xam ni ñu am solo lañu ku njëkk ki di suñu maam aadama yàlla bindee ko ci suuf bindee ko ci ban daldi def ci moom mu doon nit maanaam yàlla def ci moom nooyi muy nooyi di wax di dégg ngir mën a di jokkoo ak ki nga xam ni mooy sunu borom mi nga xam ne moo ko bind waaye téere bu sell bi di ñu wax ne nit ku njëkk kooku muy suñu maam aadama jëf bi mu jëf moo dugal bàkkaar ci biir àddina ba lépp loo xam ne soxeekoo na ci moom day daldi nekk bàkkaarkat ndaxte nit ku njëkk ki muy suñu maam aadama bu nekkee bàkkaarkat lépp lu génn ci moom rek ala kulli alin day nekk moom it bàkkaarkat waaye téere bu sell bi yokk ci di ñu wax ni yàlla andi beneen jëmm muy Seydina Isa Yeesu Krista téere bu sell bi di ñu wax ni moom am na fu mu wutee ak sunu maam Aadama ndaxte Aadama dañu ko bind ci ban waaye Seydina Isa Yeesu Krista sunu boroom moom doomu yàlla la dafa nekkoon mu amul fu mu tàmbalee amul fu mu jeexee loolu lañu téere bu sell bi di wax kon moom dafa soloo jëmm doomu Aadama waaye binduñu ko te du bind ci moom waaye daf ko solo waxtu dafa jot yàlla soxla ko ngir am mission boo xam ne bëgg na ko koo jagleel mu jox ko jëmmug doomu aadama mu ñëw gane si li nga xam ne mooy suuf ñaari jëmm yooyu bu ñu leen xoolee mbokk yi kenn ku nekk ci ñoom am na waxtu boo xam ni yàlla dafa la tànn am mission boo xam ni liggéey boo xam ne daf la ko dénk téere bu sell bi daf ñuy wax ni laata yàlla di sàkk sunu maam aadama dafa njëkk a defar àjjana ñun li ñuy woowee àjjana yàlla def ci biir lépp li nga xam ni warloo na moom ak doomu aadama bi maanaam ba nga xam ne aadama bu gane si àddina du am lenn loo xam ne dina ko yittewoo te mu baax te mu sell te du ko fekk ci tool boobu nga xam ne dañ koy woowee àjjana téere bu sell bi di ñu wax mbokk yi ni yàlla bi mu noppee ci liggéey boobu mu jël suñu maam aadama teg ko ci biir tool bi am ñaari mis am nag mission bu mu ko sant mission bi taxawee ci ñaari tànk bu njëkk bi yàlla dafa ne ko tool baa ngoog dama bëgg nga béy ko ñaareel bi dama bëgg nga saytu ko nga aar ko loolu la yàlla wax suñu maam aadama béy tool bi ak aar tool bi alors bu ñu la dénkee ab mbir surtout nag mbir moo xam ni dafa am solo dafa am daraja ñu ne la nga aar ko kon yow sa xel war na dem ni am na loo xam ni kat boo ci bàyyiwul xel mën naa yàq wala mu foxarti li nga xam ni moom la ñu la dénk kon mission baa ngoog yàlla nee na aadama na aar tool ba waaye yàlla ci jamono ji muy wax aadama na aar tool ba ñan ñoo fa nekkoon téere bu sell bi daf ñuy wax ni yàlla sunu borom moo fa nekkoon malaaka yi ñoo fa nekkoon aadama ak awa ñoo fa nekkoon ak seytaane malaaka yu sell yi yàlla sunu boroom la ñuy déggal moom la ñuy xëyal moom la ñuy gontul kon du ñu def lenn loo xam ne day yàqal yàlla sunu boroom tool bi yàlla sunu boroom moo ko moom kon du ko yàq moom ci boppam aadama ak awa ñoom lañu dénk tool ba kon bu yàlla waxee aadama mu aar tool bi kon aadama war na xool ci kan la war a aar tool bi kan la war a tere mu yàq li nga xam ne moom la ko yàlla sunu borom dénk seytaane la seytaane la yàlla li mu dénk aadama ak awa wax na leen ko na ngeen ko aar ngir seytaane bañ ci teg loxoom waaye téere bu sell bi di ñu wax mbokk yi ne aadama ak awa naka la seytaane ñëw taxaw seen kanam daal di leen fiir ñu ne mbàpp ci fiir ba ñu daanu ci fiir ba ba lépp li nga xam ni yore woon nañu ko ñu daal di ko ñàkk mu jóge ci seeni loxo dem ci loxo yi ki nga xam ni mooy seytaane xam nga Seydina Isa bi mu ganesee àddina am téere bu sell bi daf ñuy wax ci injilu Luk daf ñuy wax ni seytaane dafa ñëw ngir jàmmarloo ak moom ngir fiir ko ni mu fiire woon aadama bu njëkk ba dafa am benn baat boo xam ne seytaane daf ko wax seydina isa yesu krista téere bu sell bi daf ñuy wax ni ci xepp ak xib bi daf ko woon nguuru àddina si yépp ak seeni alal ak seeni daraja mu ne ko boo sukkee sama kanam ma jox la ko ndaxte dañu ma koo jox te ku ma neex ma jébbal la ko waaw dégg ngeen wax bi de kon seytaane moomul dara moom nee na àddina ak li ci biir léegi moom moo ko yor ndax dañ ko koo jox ku ko ko jox kañ ko dénkoon kan lañ ko dénkoon suñu maam aadama moom la yàlla dénkoon mbir yooyu alal yooyu mbir yu baax yooyu mbir yu taaru yooyu mbir yu rafet yooyu yàlla bi mu ko sàkkee ba noppi suñu maam aadama la ko dénk seytaani ñëw nax aadama ba ne foxet affaire bi yóbbu ko loolu la wax Seydina Isa dañ ma ko jébbal te ku ma neex ma jox la ko kon moom moomu ko dafa am fu mu ko jëlee ca kam ko jëlee mooy aadama mën naa la ci jox misaal yow mbokk mi nga xam ni yaa may déglu xam nga yenn saa yi nga gis waajoo xam ni dafa juddu yàlla baaxee ko mu màgg yàlla baaxee ko mu dem daara tubaab ya jàng am ay diplôme am yàlla baaxe ko benn bërëbu liggéeykat bu kaay bu mag jël ko ngir mu man di fa liggéeyee ñu koy fay salaire boo xam ne baax na lool waaye mu am benn waay bu ñëw ne ko yow de man ngaa am lu ëpp li nga xam ne moom lañu la jox waaw man boo ma déggalee di nga am lu ëpp la la nga xam ne moom lañ la jox moom lañ ma jox mbokk yi dinaa dellu si ci waxtaanu waajooju misaal boobu nga xam ne moom laa andi waaye bëgg naa ñu déglu tuuti cant yoo xam ne ay taalibe Seydina Isa ñoo ko sant borom bi di ko ko màggalee nañu déglu tuuti
امتلكنا الباب حررا قيد النفوس وارفع الحزن روح الله نحن نسأل امتلكنا الآن حررا قيد النفوس وارفع الأحزان فيت فينا الآن فيت فينا الآن فيت فينا الآن kon jërëjëf mbokk yi jërëjëf ci cant yooyu nga xam ne ci yàlla sunu borom la jëm jaarale ko ci turu Seydina Isa Yesu Krista sunu sang kon mbokk yi maa ngi leen doon nettali euh, xew dundug waajooju mu am ko ñëw ne ko man de mën naa fexe ba yow nga am lu ëpp la nga yor mu ne ko naka mu ne ko da ngay jël ay sa 10 millions ya nga yor nga jox ma ko ma fuul ko def ko téeméeri millions noonu la nga am yokk waaja daal di jël 10 millions ya nga xam ne moomu ko fa muy liggéeyee ñoo ko ko dénk jox ko ngóor góor ga góor ga dem ak ay 10 millions lan mooy xew dootul am la mu doon am te di ko xeeb dootul jot ci ay 10 millions dinañu ko dàq ca bërëb ba mu doon liggéeyee gàcce topp ko histoire yu mel noonu saa su ne ñu dégg ko ci réew mi lu ni mel nag moo dab suñu maam Adama ak Awa yàlla daf leen dénk jox leen lu doy sëkk am mbindeef bu ñëw muy seytaane ne leen man ngeen a am lu ëpp la leen yàlla jox ñu déglu kooku daldi daanu la ko dalee boobu ba léegi téere bu sell bi nag di ñu wax mbokk yi ni lépp lu soxe ko ci aadama ak awa rek lépp lu soxe ko ci aadama rek bàkkaarkat la waaye aaya bi wax ñu ni na nga xamee ni noonu la bàkkaar duggee ci àddina te jaarale ko ci benn nit mu ñuy wax it ne noonu itam jëf ju jub jub ju kenn nit ka rekk moo ubbi bunt ba ñépp mën a jub ci kanamu yàlla te am dund gu bees waaw Adama moom rek moo bàkkaar ña soxe ko ci moom ñépp daal di doon ay bàkkaarkat waaye am na keneen ku ñëw muy Seydina Isa Yesu Krista kooku jëf ju baax ji mu jëfal yàlla képp ku ci sukkandiku képp ku ci langaamu képp ku ci jébbalu jëf ju baax jooju it dinañ ci sukkandiku ngir xool la àtte la ni nit koo xam ne nit ku jub la ci kanamu yàlla sunu borom. sunu sunu sunu sunu sang bu tedd bi di Seydina Isa Yesu Krista loolu moo nekkoon liggéey bi nga xam ne moom la ko yàlla sant moom loolu lay wax ci injilu Luk bu dee man am ngeen téere bu sàll bi ngeen jàng ko ci saar fukk ak juróom-ñeent loolu la fay wax ne man kat baay bi yàlla daf ma yabal ci àddina am mission boo xam ne moom la ma sas ñu ne ko sang bi loolu ban mission la mu ne ma daf ma sas ma ñëw ci àddina ngir seet te musal la nga xam ne dafa réeroon waaw ngir seet te musal la nga xam ne dafa réeroon la réeroon lan la mooy la yàlla dénkoon Adama ak Awa fan la réeree ca tool ba la réere woon ku ko yóbbu seytaane ko gàddu yóbbu waaw kon nit ku njëkk ba di aadama làjji na ci li mission bi nga xam ne moom la ko yàlla santoon waaw béyal tool bi te nga saytu ko làjji na ci ba yàlla yabal keneen muy Seydina Isa Yesu Krista ak beneen mission mission boobu nag mooy yàlla daf ko ne demal ca àddina yow sama doom demal ci àddina te la nga xam ne moom laa dénkoon aadama ak awa ñu sàgganee ko ba saay-saay bi yóbbu ko demal ci àddina nga récupérer ma loolu waaw demal ci àddina nga nangul ma loolu nga delloo sil ma loolu loolu moo nekkoon mission wu Seydina Isa fii ci kaw suuf waaw téere bu sell bi di ñu wax nag ni ci mission boobu it dina ci jàmmaarloo ak ki nga xam ne mooy seytaane ndaxte seytaane lépp loo xam ne dafa soxal yàlla lépp loo xam ne dafa jëm ci mbirum yàlla moom day taxaw jàmmaarloo ak ki nga xam ne moo nekk di liggéey loolu waaw mu ñëw jàmmaarloo ak Seydina Isa fiir ko façon fiir bu ne bu ñuy jàng téere bu sell bi jaarel na ko ci xiif bi nga xam ne moom la Seydina Isa xiifoon ginnaaw bi mu wéetalee baayam ñeent fukki fan ak ñeent fukki guddi waaw waaye mënul ci moom dara mu jaarale ko ci li nga xam ne moom la àddina bi yépp di wut muy alal bu bari tur ak daraja waaw mu ne ko àddina baa ngi nii li ci nekk yépp dañ ma koo jox te ku ma neex ma jébbal la ko kon boo ma sukkalee rek ma jox la ko mu ne ko baax na waaw alal baax na tur baax na daraja baax na bu dey ci yàlla sunu boroom la jóge waaye bu jógewul ci moom rek baax na waaw mu mu mu fiir ko façon yi fiir yu bari te wuute waaye Seydina Isa Yesu Krista wone nag ñu dëgg-dëgg moom am na fu mu wuute ak góor gu baax boobu di Aadama di suñu maam ñun ñépp waaw ndaxte fi nga xamee ni aadama dañ ko fa fiire benn yoon mu làggi seydina isa yesu krista fiir nañu ko ay yooni yoon ci ay fànn yu bari waaye mu taxaw temm ne man de sama bëgg-bëgg mooy déggal yàlla te ci loolu laay sax waaw mu dem ba moom ci boppam seydina isa yesu krista sunu borom di wax ni man dama bëgg ngeen xam lii yéen bani aadama dama bëgg ngeen xam ni sama sama ñam bi may dundee man li may dundee sama lekk sama ñam mooy di def bëgg-bëggug yàlla sunu borom waaw loolu la wax waaw man awma beneen bëgg-bëgg awma beneen ñam awma beneen soxla awma le beneen gëstu lu dul li yàlla bëgg ngir ma mën a mottali li nga xam ne mooy mission waaw moo ci aaya bi nga xam ne ci la ko waxe day wax gaay ne leen man de sama ñam bi may dundee mooy di def coobare yàlla te te mottali jëfam ja waaw jëfug yàlla ja nag mooy récupérer mooy nanguwaat jotaat la nga xam ni moom la yàlla sunu boroom dénkoon aadama ak awa te ñu sàgganee ko ba seytaane ne ko fu feet daldi ko yóbbu mbokk yi foofu la seydina isa yesu krista wuute ak góorug yàlla yu bari waaw ndaxte moom de dañ ko sasoon moom de mission lañ ko joxoon te bi mu ñëwee ni mu ko tàmbalee ba ni mu ko jeexale amu ci benn yoon boo xam ne làggi na ci li nga xam ni moom la ko yàlla sunu boroom dénkoon te seede boobu dafa doon seede boo xam ne du moom dong moo ko seedeel boppam xam nga ñun ci réew mi ñu nekk dañuy faral di wax ni bu ñu ne diw baax na neel ndax mbokk yi ñoo ko wax kon ma mën a ne bu ñu ne diw de nitu yàlla la laajteel ndax ña ko jege ñoo ko wax waaw Seydina Isa ñi ko gënoon a jege gën ko sës rëkk ñooñu ñooy seede ci seen làmmeñ ni ci kaw suuf amul nit ku mas a dox bu dund dund gu sell bu mot sëkk bi nga xam ne moom la Seydina Isa dund waaw Pierre bu sell ma ah bi mu demee dund ak Seydina Isa nekk ak moom ay at ba Seydina Isa génn àddina ginnaaw bi ñu ko daajee ci bant bi denc ko ci bàmmeel ñetti fan mu daal di dekk ci biir bàmmeel bi nekk ci biir Yerusalem taalibe ya kilifa diine ya mbooloo mu bëri teg ci seeni bët di gis ne kii kat moom la ñu daajoon ci bant bi yàlla noot na dee ba dekki na tey ji ñun ñëpp ñu ngi ciy teg suñuy bët waaw taalibe boobu di apôtre Pierre mu sell ma moom day seede kat ni Yeesu Krista ñëw na ci àddina dund na dund gu sell ngir bàyyul ñu fi misaal boo xam ni dañ cee mën a topp pourtant nag waa ju jege woon Yeesu Krista la rëkk waaw beneen taalibe di Jean waaw apôtre Jean moom it lu ni mel lay wax waaw day na ñun de dund nañu ak Seydina Isa kàddug yàlla jël na dëmmu doomu aadama ñëw gis nañu ko teg nañu ko loxo wax nañu ak moom waaw wax nañu ak moom kon ñooñu ñëpp di seede ni amul kenn ku mel ni Seydina Isa ci sell ci jub ak di def li nga xam ne mooy bëgg-bëgguk yàlla kon mbokk yi dinañu dégluwaat tuuti cantuk taalibe Yeesu Krista yi laata ñuy dellu si ci waxtaan bi
Thank
نحن نطلب قوة المياه قوة تنقل الجبال تطرد الشيطان روح الظاهر نحن نسجد قوة الإيمان قوة jërëjëf mbokk yi ñu ngi gërëm di sant suñu mbokk yooyu nga xam ne ñooy sant noonu borom bi ci kalaama arab jaarale ko ci turu Seydina Isa euh, Yesu Krista kon ñu ñëw nag ci xaaj bu mujj bi nga xam ne moom mooy suñu waxtaanu tey ji kon gis nañu ni Seydina Isa mission bi ñu ko yàlla dénkoon motal na ko mission moo nekkoon lan mooy ne am na ci jamono lu yàlla dénkoon suñu maam Adama ak Awa sàggan nañu ba seytaani fo xarti na ko ci ñoom daal di ko yóbbu mission wu Seydina Isa moo doon lan mooy ñëw ngir jotaat loolu nga xam ni seytaane daf ko foxati woon ci euh, a- Adama daal di ko yóbbu waaye ngir mu mënoon ko def fale que mu dund dund gu sell faw mu dund dund goo xam ne amul lenn luñ ci sikki sàkk wala ñu ciy laam-laame jëmale ci déggal yàlla bëgg yàlla ak topp yàlla moom rek la amul keneen góorug yàlla yi bëri nañu waaw bëri nañu seeni jaloore xam nañu ko ñun ñëpp seen bëgg yàlla ak seen ngëm yàlla xam nañu ko ñun ñëpp waaye kenn ci ñoom melul ni Seydina Isa Yesu Krista sunu borom xool leen suñu maam Ibrahima waaw moom mooy baayu ñi gëm ñëpp di xaritug yàlla ci boppam waaye làgg na ci dundam téere bu sell bi daf ñuy wax ne suñu maam ibrahima de dundoon na jamono yoo xam ne jamono métti woon na bekkoor amoon na ci àddina mu war a dem ci réew mu ñuy woowee misira wala bokk égypte mu ànd ak soxnaam su tedd ga waaye mu ne soxna sa bu ñu àggee misira de dama bëgg nga jàppale ma buñ la laajee bul wax ne sama soxna nga waaye neel sama rakk bu jigéen nga ndax boo ne sama soxna nga xam naa waa misira dinañu ma rey ngir man laa takk kooku làggi na ndaxte yàlla moo ne bul fen waaw lu mu métti métti waxal dëgg waaw kooku làggi na góorug yàlla gu mag koo xam ne kenn du lamlaame ay mbo ay mbiram muy yonent yàlla Musa liggéeyal yàlla liggéey bu mot sëkk ñëpp di ci teg seen bët kenn du lamlaame ay mbiram waaye moom it làggi na téere bu sell bi daf ñuy wax ci digg manding ba bani Israël mar gaay di ñaxtu fu ne yàlla woo ko ba mu ñëw mu ne ko Musa mu ne ko borom bi mu ne ko demal doj waa ngi nële boo demee waxal ak moom boo waxee doj ba ndox ma dina baawaan waaye booba Musa mer na mu dem au lieu que mu wax ak doj ba mu daal di dóor doj wa yàlla woo ko ba mu ñëw mu ne ko yonent yàlla Musa mu ne ko borom bi mu ne ko du lii laa la santoon kon war ma loo ma ci kanamu mbooloo mi waaw ndax teggi nga sama wax kon laaj na waaw beneen góorug yàlla boo xam ne kenn du laam-laame ay mbiram muy yonent yàlla daawuda di buur bu mag ba ñun ñëpp xam nañu ay jaar-jaaram ak jabaru jàmbur jooju ñu doon woowee Betseba te mu mujjee jur ki nga xam ne mooy Salomon bu mag ma wala Suleyman waaw nañu wax ci Suleyman ah góorug yàlla dëgg kenn du lam-laame bëgg yàllam waaye téere bu sell bi ñu ngi wax ni ci njeexitali dundam moom suleymaan xolam de nekkul woon ci yàlla kese ndax soxna ya nga xam ne takkoon na leen te ñu bëri ci ñoom doonoon ay jaamukatu xërëm waaw ñu bëri ci ñoom doonoon ay jaamukatu xërëm beneen yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Isayi ah Isaya boo xam ne naka la gis leerug yàlla dafa àgg suuf ne ngala man toroxte dab na ma ndaxte baakaarkat laa bu juddoo ci biiri baakaarkat te sama làmmeñ yépp dafa tax waaw kon loolu mënoon naa ko lim fii ba suba te duma pare ñooñu ma lim yépp nag kenn du laam laame ni ay góorug yàlla dëgg lañu ay nit ñoo xam ne béy nañu ci toolu ngëm bi loo xam ne kenn du ko laam laame bëgg yàlla di topp yàlla di góorgóorlu ci toolug yàlla gi waaw waaye kenn ku nekk ci ñoom bés ñëw na mu làggi waaw kon téere bu sell bi di ñu wax ni lépp loo xam ni doomu aadama la te mu mos a dox ci kaw suuf képp koo xam ne doomu aadama nga te ëllëg ngay dox ci kaw suuf ba keroog seydina isa yeesu krista di dellu si ngir yàlla ate ñiy dund ak ñiy dee képp ku moo dox ci kaw suuf fii baakaarkat nga ba mu des seydina isa góorug yàlla ga moom rek moo jóg taxaw ci diggu yerusalem mu dajale kilifa diina yi mbooloo mi ñi ko gëm ñi ko jege ñi ko wër ñi koy gis saasu ne mu ne dama bëgg ngeen wax ma kan ci yéen moo ma mën a jiiñ bàkkaar bu ma def mbooloo ma ne teg waaw mbooloo ma ne teg kenn yëngatuwul waaw ndaxte du ci waxam du ci jëfinam du ci melokaanam du ci ay demam du ci toogam du ci mébétam du ci xalaatam amul lenn loo xam ne mos na koo def rek ba mu féewaloo ak bëgg-bëgguk yàlla yu sell ya kon mbokk yi looloo tax seydina isa mot góor gi ngi mu doon looloo tax mu mot mission bi nga xam ni dénkoon nañ ko ko looloo tax mu munoon a doon mboteem yàlla mi amul benn sikk ba mën a dee ci banta bi tuur deretam ngir man ak yéen waaw kon ma bëgg leen fàttali lii Seydina Isa Yesu Krista bu deewee ci bant bi du accident bu ko dab déedéet yàlla mbiram amul accident seydina isaa bu deewee ci bant bi du tooñ bu mu tooñoon ba ñu fayee ko ko déedéet waaye dafa ñëwoon ngir seet si ñu ñun doomu aadama yi te récupérer ñu jotaat ñu ci loxoy seytaane mi nga xam ni moo ñu nootoon nag waaye nag loolu récupération boobu jotaat boobu nag dafa amoon njëg boo xam ne moom la ñu war a fay te njëg boobu nag moo doon mu joxe bakkanam ci dee ci banta bi waaw ndaxte xam nañu nag ni wax dëgg fa yàlla lépp lu tàbbi ci loxoy seytaane rek tilim la ah nañ waxante dëgg lépp lu tàbbi ci loxoy seytaane tilim na kon même boo ko nangoo ci seytaane ngir nga jébbal ko yàlla faw nga sellal ko te yàlla nag day wax ci téere bu sell bi jaarale ko ci yonentam yu mag yooyu ne tilim ngeen tilim boo xam ne seen ruu la laal te seen ruu fa mu ne saabu du fa àgg eau de cologne du fa àgg eau de javel du fa àgg waaw ñu ne ko yàlla lan moo mën a sellal ruu doomu aadama mu ne deret ñu ne ko ban deret mu ne deretu mbindeef boo xam ne amul lenn loo xam ne tax na ci moom waaw ñu xool ci biir mbindeef yi amu ci waaw limal naa leen ko léegi li ko dale ci a ibrahima mi nga xam ne mooy bàyyi ñépp ñi gëb ba tey jii amul yàlla mu ne comme bëgg naa nag doomu aadama mbëggeel bu tax bugguma mu sànku dinaa ko récupérer te comme ñoom ci seen biir amul kenn koo xam ne mot na mbote kon man ci seen bopp dinaa leen jox mbote na ma ko joxe woon ibrahima ngir do wuutu doomam ba isaaxa ndaxte kooku histoire la boo xam ne xam nañ ko ñun ñëpp mboote ma wala kuy ma wuutu isaaxa bi ko ibrahima bëggee rey jëndewuñu ko marché yàlla moo ko joxe waaw mu ne bii yoon nag ki ma bëgg a jot ki ma bëgg a wuutu du benn nit mais àddina si yépp la kooku nag damay joxe man sama bopp sama doom ji nga xam ne kenn mënul sikki sàkk kenn mënul laam-laame sellaayam ak bëgg yàlla loolu mooy andi mission wu ñu Seydina Isa fii ci kaw suuf kon mbokk yi nañu jàpp li Seydina Isa ñëwul woon pour wax ñu li baax ak li bon ndaxte loolu yonent yi waxoon nañ ko ba noppi waaw dafa ñëwoon ngir jot ñu ci suñuy bàkkaar looloo tax mu dee ci banta bi kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan rek yàlla gën a ubbi xel yi gën a ubbi xol yi gën a yokk xam-xam yi ba ñuy gëstu kàddu gi ni ñu koy waxee saa su ne ñu bàyyi ñaaw njortu gi te di gëstu téere bu sell bi xam ngeen suñuy numéro téléphone man ngeen ñu ceewoo bu ngeen soxlaa téere bu sell bi mën nañ leen ko wutal bu ngeen amee ay laaj mën nañ leen tontu ci laaj yooyu di ñaan yàlla barkeel leen te barkeel kenn ku nekk ci ñun di leen gërëm di leen sant ci déglu bi di ñaan rek yàlla may ñu dund fekkee ak tal ba beneen yoon jërëjëf mbokk yi
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
إن